doole doole doole gis ngeen réanimation bi bu ma fi duggee sànq comme dama duggee Dubaay bërki dem léeg-léeg ma ne ah est-ce que nekkuma diggante est-ce que nekkuma Dubaay mais maa ngi Sénégal nekkuma dakaar maa ngi Touba. PCA wax na ko sànq ñun ñi nga xam ne xëy na maguñu lool mais ndawuñu lool damay faral di wax dafa am monsieur le gouverneur spécialité yoo xam ne bu ñu ko waxaan dañuy bañ boo xëy ne loolu du musa am Sénégal jalis bi ngay gis rek dañu yoon musa am Sénégal. jàng leen ko nii rek ci ay kayit wan ñu kayit ñu dessiné bay bëgg dee temps boobu nag amul ordinateur da nga yor crayon rek di di di di taay ñeen gis ngeen ko de rein bi day jaar fii lii def fii def na leen mais nag jàpp leen du ngeen ko bës a gis ñu ngi sant yàlla gis nañ ko génn na Dakar capitale egsi na fii damay faral di wax xale yi man bu may wax damay kontaan ba du ma xam sax si lan laa nekk parce que dafa nekkoon ay gént nag médecin yi xam ne lu leen di wax pour nga jàng bu baax da ngay dem bibliothèque boo demee bibliothèque léeg-léeg mu am koo xamante ne yoonam nekkul ci gi ñëw ci gannaam danaan sax xotti feuille bi bu ko soxlaa dem ak moom yow ko gisati tey nag internet lu neex nga gis te egsi na Sénégal acteurs communautaires yi ngeen dégg sànq nga xam ne duñu tàyyi duñu sonn muy bàjjenu gox yi muy relais yi seen liggéey am na solo parce que ñoo nekk ci fagaru mooy prévention ak promotion de la santé lu am solo la réanimation bi lu am am doole bloc opératoire bi gis naa ko bi nga xamante ne sëñ Saaliw ak ñi ko wees yëpp ñëpp wax nañ ko wax nañ li fa nekk bi ñuy dox tey yéen a ngi doon gis ñu ko télévision bi di génnee lépp a ngi fi macha allah waxuñu kenn du feebar mais ku feebar bu mu bëri complication yi nga xam ne mën nañ ko moytu yi nga xam ne mooy yiy wallaate ci gën a bëri daan nañ leen mais bàjjenu gox yii boo leen gisee tey fu ne ñu fay dugg ak acteur communautaires yëpp su ma nee acteurs communautaires yi même ki nga xamante ne faj faju maam ci la bokk kooku dafa am solo li ñuy wax médecine traditionnelle lu am solo la waxuma nag jabarankat yi waxuma la noonu mais médecine traditionnelle ngeer bi ñuy naan tey ñoom dañ ko naan joxe xanaa ku kenn du ñu wax ne yaa téeméeri at suñ suñ maam yi nga xam ne dañ doon am cent ngeen mañ doon naan baaxul ngeen mi tam daa war a baax mais fekkte xob boobu noonu boo ko wittee doo ko def si naaj xëy na boo demee doo ko xànc yenn xànc yi wala boo koy xànc yenn xànc yi na nga jàpp si ne war nga def repeuplement mooy li tubaab di wax ne foo dagg rek nga xalaat ne garab gi dina dee bu fekkee da nga bugg yëf yi continuer da nga war a jëmbataat ci loolu la ñuy liggéey ak ñoom ñi nga xamante ne dañuy toog fi di wax ne mën nañ fee faj lu ne ñun de docteur mënuñoo faj lu ne ñun docteur sax dañuy wax ne bu leen wax ne da ngeen di guérir mooy da di wëral dañ wax ne bu la malade bi nekkee nga tiim ko fexeel ba coono bi tax ak métit bi mu duggee mu wàññeeku nga soulager ko boo ko mënee wëral baax na du ñu tamit tere nit dee yàlla rek moo yor bakkan mais nag dafa am lu mu jaaree ci ñun ñuy wax ne la santé c'est l'alpha et l'oméga mooy nit buy ñëw àddina moo tax ñu ne accouchement à domicile yi ñoom dañ koy bañ buy génn àddina itam bu fekkee ci hôpital tam gis nga ni ñu koy defaree du génn àddina rek ñu teg ko noonu mu dem dañuy faral di wax ne ka nekk ca morgue ba conscience professionnelle bu mu war a am nit ki sax boo dugalee nitam ne ko massa parce que métit dafa bëri dafa am doole donc loolu yëpp bu ñu ko fàttalee wax ne tey dañuy sant yàll parce que fii nag ñëw nañ fi dul benn du ñaar du ñett bi nga xamante ne tey communauté Mouride rawatina daayira Matlabul Fawzeyni ñëw ci ku sell gi sëñ Saliou ne ko dañoo bëgg a def nangam bi da leen cee gën a puus da ngeen ko def ngir askan wi. nitu diine boo gis ci àddina dafa am fu mu teg santé ñoom xam nañ bu baax lan mooy santé action sociale ci loolu rek la ñuy wéy ba ñu ko paree mu def rek li ñu bëgg te mu gën ñu koo xam. mooy delloo ko état ndax moom dafa nekk nitu état ba mu ko delloo état boobaak léegi mat na ñaar fukki at ñu toog a toog wati bâtiment bi di dem di dem ba nga xamante ne ah war nañ ko yokk que ni Touba yokkee macha allah yàlla jëm kanam ñu ne nañ defaat hôpital ci biir hôpital may gestu di wax directeur d'hôpitaux yi fi toog lii moo tax ma ne leen bàyyi leen tabaxantu tabaxantu baaxul toujours ma wax leen ko ana docteur Matar ci yow laa koy teg sa loxo ma ko directeur yëpp. saa amee ñaari saak ciment rek nga tabax loolu baaxul bu ñëwee tabax bu njëkk baa ngi nii principal bi da nga war a ne tekk ne tey ne man kat tabax bii ma lii ak lii moo fi manqué bu nekkee yow directeur nga da nga war a xool au niveau du conseil d'administration ngeen waxtaan ci ngeen teg yëpp ci lu leer ngeen indi ko ministère de la santé ñu tam ñu wax si li ñu xam jébbal ko premier ministre. jébal ko son excellence président Macky Sall bi nga xamante yaakaar naa ne weesu na géologue léegi kat la ndax man moom kenn gënumaa sonn fi mu nekk nii ci tabax l'hôpital ak ay centre de santé léegi ma nekk sax ingénieur de bâtiment ñu étudier ko yor xaalis taxut a defar bâtiment parce que batiment dafa ay agencement ñi ko jàng ñu ngi fii mooy ingénieur yi nga xamante ne tey dama kontaan bi ma waa Fonds Cisne ils sont tous sénégalais pour wax ne ñii tey dañu mën a compétir feneen fu dul Sénégal mu wax ne Sénégal c'est un pays ouvert yéen ni ngeen mën a tabaxee fii c'est parce que dañu leen wóolu de bu ñu leen wóolu leen doo leen tabax kon tubaab la ñuy woo le Sénégal est un pays de démocratie dans tous les sens bu ñuy tabax sax dañuy ànd ak démocratie tubaab bu gañee tubaab bay ñëw tabax yéen nag da ngeen war a buuxante mais ni ma leen gisee ñu mën a buuxante ngeen yéen yaakaar naa fekk ay weer di ngeen dem Dubaï ku indi ne mën naa tabax. dañuy xool ndax mën nga tabax mais FONSIS nag dafa nekk leneen FONSIS dafa nekk loo xamante ne lii suñu waajur yi doon wax président Macky Sall di ko wax son excellence nit day am xarit yu baax yéen ñëw ngeen ne da ngeen bëgg a tabax président mun na ne ah monsieur le ministre budget et des finances lan nga am sa gafaka mu ne man kat li ma am pour lii la mooy priorité bien que tabax bi priorité la mu ne bu boobaa. damay yónni ku tudd FONSIS mu dem wutali ma FONSIS c'est une institution de l'État may jël nuyoo gi yépp di ko teg ci loxo monsieur Pape Demba jàll maa ngi lay gërëm di la sant dafa liggéey fii liggéey bu am solo moo tax ñeneen gis ko jël ko loolu mooy dëkk mu pare jox ko ki nga xamante ne dama doon ànd ak moom fii bu dul benn du ñaar di la directeur général monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ma koy gërëm di ko sant parce que bañ fiy ànd mu nekk lu ñuy tabax Covid bi ñëw fi ñu sonn lool Touba ñu sant service yëpp ñuy sant collectivité bi yëpp fu ne ñu ubbi fa bâche ñu xalaat ne war nañoo wàññi tabax bi def ko centre de traitement épidémique te yoon nii personnel bi ngeen d'accord ci loolu ñu ngi leen ciy gërëm leen di sant loolu mooy FONSIS jërëjëf FONSIS parce que du fii rek lañuy ñuy jàppale am na ci yeneen l'hôpital yoo xam ne mu ñuy jàppale am na foo xam ne sax du affaire l'hôpital pour wane ne état day am ci gafakaam mais am na xarit baax ñoo xamante ne bu ko jàllalee ci fonds souverain bu mel ni FONSIS dana mën a ñëw donc FONSIS mooy état état mooy FONSIS ñu ngi leen di gërëm di leen di sant. ñu wax ne ñu ngi kontaan lool monsieur le gouverneur bi nga xamante ne ñëw nañ fii ñu teeruñu man xaritu mbéraago yi seen teeru bi rafet na. maa ngi leen ciy gërëm di leen ci sant di wax ne xam naa sama nuróole dama fekk si. di wax ne son excellence le président Macky Sall lu mu ñuy dégluloo toujours suñ nopp yi mooy ne bâtiment bi lu ma rafet rafet wax nañ ko sànq équipement yi moom taxatul sax may wax wax dëgg yàlla gis naa sonk docteur yi si boppam gis nga docteur nag loo koy gis gaaw te gërëmaate de mais gis naa leen tey ngeen gërëmaate yéen ñi du ngeen gërëmaate tàccu leen ma mais dañu kontaan xam nga lu tax su ma nee docteur ñun Sénégal docteur mooy infirmier mooy ñëpp ñun loolu la ñuy wax xam ñu kontaan parce que jàng dafa metti université Dakar bii bilaay génn fa jàmbar nga ak ñoo mën a baare professeurs yi maa leen gërëm leen sant ñu jàngal ñëpp ñuy baare di baare ngay dóor rek di baare ba egsi fi nga egsi fi nga dem école nationale développement sanitaire maa leen di gërëm leen sant école privée yi ñu leen di gërëm leen sant ci ñun ngeen bokk parce que dañuy participer seen autorisation di leen di seet ndax li ngeen def mu ngi tegu ci yoon nga génn pare nga timmalaat sa xam-xam yépp nga def ko ci mais ñu ne dafa am matériel bu manqué muy docteur médecin muy infirmier bi sage-femme ñaata yoon lañ timmalaat jooy léegi nag yéen da ngeen naan docteur yi seen xol yi dafa dëgër ay suñu xol yee ko nooy dañuy jooy lu méttee méttee méttee mais léegi yaakaar naa ne loolu war naa mën a wàññeeku du jeex tàkk nag parce que àddina dara tëwul sotti mais li ma gis fii. te ma gis ko depuis bi Covid bi ñëwee mooy malaat nga teg ko fi mu tegu di ko faj di ko faj di ko faj di faj ba mun a génn wala yàlla def li gën ñaar yooyu rek moo am te doo bouger malade bi parce que bouger malade bokk na ci li yokk feebaru malade léegi lal bi soo ko soxlaa da ngay tourner di yéegal di wàcce léegi ECG bi mooy li seet xol bi li seet xëtër bi lépp a ngi fi macha allah yàlla bu si ca topp lu ci am loolu kontaan président Macky Sall nañu dafa bugg a mooy faj bi daf ko bugg a jegeel fej nag mu jege am na géographie mooy fi ñu taxaw nii mais ki nga xam ne moo gën a sëri Touba war na fee mun a egsi mais dafa am ay étape sànq nee naa docteur Ndeye Maguette su ma wax day taxaw sama gannaaw docteur régional day taxaw sama gannaaw xamul tax mooy indi nañ sànq ci fajar gi ambulance di sant bu baax DG Pa Modou Fall itam bi indi loolu mooy Sénégal Sénégal mooy lan. mooy tekki ga ak foo mun munti doon foo mun munti nekk muy formel muy informel nga ne naa delluwaat sama dëkk état itam indi fi ambulance bu bees takk de dernière génération nga xam ne mun ngaa taxaw di faj comme l'hôpital en attendant jot ci l'hôpital te loolu nag ma wax ne presque région yëpp léegi am nañ ko ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi xaar ay ambulance su yàlla àndee bu ñëwee nga xam ne léegi département yëpp ñoo koy am gis ngeen xaj na mat la Matlaboul Fawzeyni amu ko mais yenn hôpitaux yi ngandamal ambulance yooyu lañu am lu ñuy wax SMUR parce que yooyu dañu bëgg ñuy liggéey ak li ñuy wax SAMI SAMI national SAMI régionaux yi ba nga xamante ne wax naa ko sànq tout le monde s'est engagé place amul bokkul ci faj fii ma taxaw nii mën nañ fay faj yow animateur xam nga li may wax lan la bu ñuy jàng secourisme lu njëkk a jàng deuxième année mooy boo rombee sa accident yal na yeex au ngay toog rek di photo yow gis nga ne benn nopp bi mooy mooy génne ndox docteur noo koy tërale jàng nañ ko xanaa doo tegaat nopp ba di génne ndox rek ndox may jeex ndox ma dafa am fu mu am solo de jàng na ko ok au lieu nga nekk fa yow ñu ne la nit ki nooyeetul amal noo ko tëddee est-ce que doo ko tëddee le côté gauche et cetera dama bëgg nag yéen docteurs yi fii ngeen commencé formation bi dama ko defal waa Croix-Rouge yi nga xam ne moom rek lañ mën maa leen di gërëm leen di sant leen di gis nii man ñoo ma jàngal secourisme gestion d'élément de la Croix-Rouge bu leen rek de ñaan ma ko yàlla maa maa bëggoon kenn daanu fii nga xool docteur yi dañuy daw ci kaw du indi ay piqûre mais ñoom dañuy liggéey médecin bi nag balaa mu ñëw dafa am lu koy jiitu c'est important waa Croix-Rouge tàccul ma dem donc place amul moom dañ ko bàyyi ngeen def régulation tey jii nii boo gisee fii am na ku ñu mës a wax benn bés lu tax xaadimul xaadim am ngeen di yeggal bâtiment man na ko yow xamoo lu système de santé lii bu amul xaadimul xaadim day nekk su pression mais également centre de santé dafa war a taxaw dañ ko war a jàppalewaat waat doole ko matériel wutal ko ay ambulance ba jëm Bambey Bambey am na Mbacké am na tabax yi egsee guñu loolu mooy système de santé ñu jël ambulance yi def ko en réseau ambulance bi nag soxna si fii laa ko teg mais yéen rek moomu leen c'est en réseau waaw bu leen ci siis dégg nga noonu ngeen koy defar donc loolu mooy accès universel mooy ñëpp jote ci paj mi parce que ki nga ne poste de santé la am na solo mais Touba nag waa tubaa nag yéen kese nag moom leen Touba waa Matam bu leen neexee ñëw fajoo fii faj question de confiance la man su ma yaakaar ne sama bëj bi médecin baa nga Thiès damay bàyyi waa Dakar ñëw Thiès mais boobu day fekk ma ànd ak sama sago ma ànd ak sama sago fu ma neex lay fajoo ma neexee na ba fii ci euh, docteur yi nii mais boo àndul ak sa sago moo tax ñu naan nañ defar toogaay bi parce que man mi ministre de la santé su ma demee fenn benn hôpital daanu ànduma ak sama sabo munu ma ne naa seet docteur Soran naa seet kii naa seet kii déedéet yoo danga da naan xàng rek doo xam kan mooy pikiir doo xam lan ngay def moo tax am na solo réseau la kenn du faj yow kese kenn du fëgg sa dënn ne man rek maa mën a faj loolu amul fenn waa Louga bu la neexee ñëw Louga sax si ñun la bokkoon waaye léegi dem nañ seen waaye ñëwaat leen Louga ci Bawol gi la bokkoon waa Daara. te nag gis ngeen nag li xew léegi mooy waa dakaar ñuy fajoo si euh, Touba nag dañu bëgg tey waa dakaar bu ñëwee centre jalis bii fees na ñu lijjanti ñun ba fex mun mën a yóbbu Kédougou Kédougou yi ubbi nañ ko ki démb 14 régions ñëpp am nañ centre de dialyse kan moo ne woon dinañ def li ñuy wax une intervention endovasculaire man dama yaakaar ne sax bu moytu bi nga ma jàpp léegi ma daal ñu def ko fii xaadimul xadim defoon nañ ki dem ay transplantation mais gis ngeen keroog ki nga xam ne seex yooyu nga xam ne ni ñu tëddee baaxul du ñu wax siamois gis ngeen professeur Gabriel ni ñu ko ubbee te kenn du leen dégg duñ coow gis ngeen tey près de 200 nit yu ñu ubbi seen xol maa ngi Sénégal de nekkuma fenn fu dul Sénégal mais loolu doyagul mais dëkk boo koy nat doo ko natt ne lii la am tey mais da wax ci progrès yi ñaata jéego la def. yaakaar naa ku xam système de santé bi xam ne am na ay jéego mais desaat na mais li ëpp solo par rapport ak li ñu yore actuellement mooy suñu comportement mooy suñu jikko te loolu boo nekkee deuxième année sine balaa ngay def sémiologie li ñu lay njëkk a jàngal maa ngi koy fàttaliku sax xale yu góor yi bañoon peñe wu prof ba daa indaale peñe ñi bokk ak man classe yëpp xam nañ ko mu ne leen ku fi dugg peñe woo dinaa la peñe booba temps greffage amul mais nag dañu bëri woon karaw macha allah. mu ne seen karaw yi ngeen di wàccee chouchou ku xam professeur Meyssa bu urologie paquetu chouchou la doon am li may wax ñu ngi may dégg nga xam ne ñooñu dañuy jàngal leçon mais dañuy jàngal comportement ak nit ñi di taxawee loolu am solo la donc greffage yi rafet na trop takk leen leen musoo leen leen ba mu dëgër parce que ay source d'infection lañ dañuy indi ay feebaru wàllaate loo am am après baaxul sama robe bii chaque jour ma wax leen ko waruma see mun a teg blouse dama am jiital boo xamante ne dama ciy teg blouse bi parce que dinaa indi feebar dinaa jële feebar yóbbuwaat sama kër te bu boobaa day am problème donc yu mel noonu yëpp xam nañ ko jàng nañ ko emay boo seetloo lool duñu emay lu bëri man ci oto bi laa laalee tuuti rek pour su may wax mu xaw a rafet xamee lu tax ki ñu wax professeur Moustapha Sow booba temps ñun amuñu yenn yi benn rajo fan rek la amoon boo nekkee avance law pour nga xool ndax malade bi dënn bi am na ndoxam déet poumon yi xëtër gi nii ngay def di dóor nga war a mun a déglu pour xam ndax ndox la wala ndax ngelaw la nga taxaw nga ne malade bi waxal Boubacar wala 33 muy riir yéen fekkewu leen loolu yéen da ngeen am ay rajo muy génne ay cliché am na solo rajo yi ma terminé foofu ku leen di mu nga may appareil rajo il faut am fu mu jaar parce que rajo boo ko tegee fii mën naa ci seet nit mais rayon yi ka nga xam ne yoonam nekku si dafa romboon rek ci hôpital ba mën na ko laal barki dem bañ demee euh, xaadimul xaadim lan la ñuy wax radiothérapie moo nga fa mooy léegi même cancer bu nekkee fenn danga koy fexe natta nat ak rajo radiophysiciens yi ba nga xamante ne boo dóoree foofu lay yem kon avancement am na donc vraiment ñu ngi wax ne du ma waxaat lépp li nga xam ne gis nañ ko fii yéen ñëpp gis ngeen ko maternité tey sama docteur bi Blaise nga xamante ne gynéco yi moom boo nee caare gi sax na laalo ñu ne orthopédiste ba puusal viscéral ba puusal yéen ñëpp amu leen importance malade baa ngi bëgg a dee te dañu war a éviter nit ki indi bakkan bakkan di ko fi jëlee ndegem neex na yàlla day puusaate rek di puusaate di puusaate docteur bàyyi puusaate bi am nga c'est extrêmement important parce que ñun su suñu ay priorité la lutte contre la mortalité maternelle néonatale daf ci am solo donc bu ñu ko tegee foofu ak matériel ba léeg nag mu able ndax dégg naa sànq sax orthopédiste naan ko am na lu teg fii ci yow danaa ko nangu du leen àtte nag xamante ngeen seen biir mais xam naa lépp lu ñuy wax rek pour bëgg a defar la yal na leen si yàlla dimbale donc lépp mu ngi fii di sant di ñaan ba a gën a guddal ndax bu ma waxee li ci étage yëpp day am problème wax rek ne ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jël ngërëm bi yëpp ak sant bi teg ko ci loxo sëñ bi le grand xalif général des lu ko njaboot gi yëpp sànq maa ngi leen gouverneur bu ma demee damay ragale lim ndax ñëpp teew nañ képp ku war a teew si bés bi rek tey teew ak xat yëpp teew nga ci gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne bettuñu ndax fii lañu màggee fii lañu taxawee ni ñuy taxaw xam ne lu ñu wate ci santé action sociale ngeen ñëw parce que da ngeen cee dugal seen loxo di wax ne ñëpp wax naa ko ingénieur yeeg ñëpp ñu ngi ci. di wax nag docteur Matar maa ngi jël nuyoo mbooleem docteur bu fu mus a nekk teg ko sa loxo ku fi jaar rek wax nañ ko sànq lenn moom ñett rek la retraité na ñu def po bu ne. am na boo xamante sax bëgguñu ko ndax fonctionnaire bu liggéey bëggul kenn ku ko daal boobu moom bu ko kenn tudd dañ koy waxaat rek mën a wax ne mën na nekk mais yàlla nañ si yàlla ñetteel ba mooy nit ki génn àddina des fois benn kilifa ne woon na ma soxla wax yàlla na yeex bu ñëwee rek day ñëw mais yàlla nañu fekk ci lu baax yàlla ñuy wax ne ñëpp ñu ngi leen di gërëm mais tey bu ñu wootee le doyen sëñ Fallou Diop bii di suñu mag di suñu lépp ñëw toog nga xam ne santé amul retraité ba léegi li muy ñuy mag di def yëpp ma biir leen tey ne day jékki-jékki jékki téléphone am woo ma bu déggee sama wax wax bu dëgër mu ne ma ah defal nii defal nii defal na yal la yàlla gërëm maa ngi teg yëpp ci sa loxo képp koo xamante ne jàpp nañu tey pour gestion bii gën a dem kanam ñu day lay gërëm la sant wax nañ sànq maintenance mooy di seet appareil yi appareil comme nit la rek. gis nga suñu dàll yi bu fekkee da ngay toog une semaine ñëw cirage ko wala si laa nga ñëw cirage ko ci kaw poussière du sotti yéen góor ñi xam nga li ma leen wax lan la chaque jour ngeen jox ñu seen dàll yi mais da ngeen wax da ngeen koy njëkk a ba pare ba poussière bi dañ nga def ci cirage noonu la matériel bi mel donc maintenancier yi waxuma chaque jour mais presque chaque semaine wala chaque mois da ngeen ñëw di xool am na tey kontaan ba ne ma léegi sax médecins yi soxlaatul ñu dugg en kay machine du remplacer nit fut technologie mën a dem ci àddina parce que machine boobu noonu nit a koy defar nit ki koy defar mun naa jum sax sa ba mu koy defar te du feeñ donc du teree liste de garde bi na normal santé nag amut feet mais ñun xam ne ñi ñuy waxante suñu biir ba sama feet bu ñëwee ma woo diw feetu keneen ma woo diw boo seetloo sax ci ni ñuy wootantee dañuy wóolante parce que bëgguma nga remplacer ma sama garde def loo xam ne warul nekk sante daal c'est chaque jour chaque heure chaque minute chaque seconde semaine par semaine cinq jours weer par weer mën ngeen ko yàlla may na leen xol bi parce que 7 ans de médecine du fo léegi infirmier bac plus 3 ans la même ki nga xamante ne sax dafa ñëw léegi di bale hôpital bale plus la xamu tax parce que buy bale day yor gant kan mooy bale suñ kër yi di yor gant même bu Covid bi ñëwee booy bale doo yor gant masque yi kii bale da koo war a yor kii bale war na mun a xam ne serpillère bi dem ci euh, wanag wa du ñëw fii si biir qualité hygiène vraiment mun ñoo wax lépp dama kontaan di sant bu baax son excellence le président Macky Sall ndaxte mën nga mën jàng mën nga xarañ lool mais confiance dafa am ci àddina te dafa jox yépp bàyyi ñu ko ma wax leen ne ñun ñoo bokk ci ministre yi nga xam ne presque chaque conseil de ministre on est interrogé santé action sociale daf ko def ci xolam yal nañu ko yàlla fayal mu dénk ma aussi son premier ministre Amadou Ba ma di ko gërëm di ko sant parce que itam mënoon na ñëw président dénk ma ko mu ne kii neexatuñ nañ ko fi jëlee mais itam ni may wax rek kuñ fi jële rek Sénégal lañ fi teg te kooku comme ñun la ñëpp mën nañoo mos ku mos xajal sa morom ñu ngi gërëm sant ñëpp mais ku ñu fi teg itam na nga liggéey ñuy wax ne gouvernement bi yëpp lu tax wax tey chef de service yi parce que tey jii bu fekkente ne fii dafa rafet bay bëgg a dee mais ci nawet bi dimbale ñu assainissement bi kenn toppatoo ko kon ñun duñ mën a liggéey donc du ma leen citer tous les départements sectoriels du gouvernement du Sénégal maa ngi leen di gërëm leen di sant yéen ñëpp mën ngeen di liggéeyal. te ñoom tamit xam nañ ko ñoom ñëpp maa ngi leen delloo ak cant ak ngërëm ak seen wàccuwaay yaakaar naa fàttewuñu kenn li ma mën a wax daal mooy mi ngi ci ndekkal at mi di wax ne at mi 2024 yal na na yàlla def ko mu neex mu neex mooy ñun waa personnel de santé bi ñuy gën a am yu rafet yu mel nii rek te yaakaar naa fi ak ay fan waa Fonsis nee nañ ma dinañ am fu ñu inauguré mais nañ koo nañ ko def surprise di inauguré personnel bi di kontaan. président nag yokkaloon na leen xam naa am na yu des rek xam naa su ma ko tuddul ngeen ne kii dañoo fàtte mais ñu ngi ci waaw tey moom 2024 bi amul kulóo waaw ñun ñëpp nañu ree di wax fii ci kanamu kilifa diine yi kilifa aada yi ñun ñëpp on s'engage personnel de santé d'action sociale mais li ñu xel di liggéey rek yëkkati leen seen loxo mu xool on s'engage son excellence dañuy liggéey di toppatoo malade yi di di di di def lu baax daal def lu baax ci la lépp xaj presse bi nag du ma leen fàtte ndax li may wax ni yëpp maa bëggoon tey ngeen fàtte ubbi affaire bi may séen nii kenn du ma gis maa leen di gërëm leen di sant nee naa presse bàyyi leen rek ñuy wax même bu fekkee li ñuy wax sax yow metti na la xam nga am solo man tey jii boo ma nee maatam am na lu fa xew am na ak amul yéen ay baromètre ngeen mooy yéen da ngeen def ay fer de lance bu ma nekkee nit ku muus nag laa de muus laa wax de damay dem seeti la xew yal na yàlla fay maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp.